euh, aujourd'hui le problème est un problème du Sénégal et des Sénégalais le problème est que à la fois les citoyens civils et politiques doivent se retrouver pour mener ensemble le combat parce que lu ñu mënti wax on va vers l'inconnu lu ñu mënti wax au-delà de l'inconnu aussi on va vers l'impasse tey li nga posé mooy lan annuler l'élection et prolonger le mandat de Macky Sall Et il y a un autre débat qui est derrière. c'est le débat d'abord de la légitimité et deuxièmement de la légalité. Hmm. tey jii fi ñu toog nii di wax nii est-ce que Macky Sall il est légitime il a commis tellement de fautes qu'il n'est plus légitime. le fait que moom joxul cër waa Sénégal le fait que moom mu daan def lu euh, euh, ñu koy waxee euh, discours à la nation à partir de vingt heures c'était très attendu. fii mu nekk di jouer ci ay glissement midi laa koy def du ko def midi suba laa koy def ngoon laa koy def discours à la nation le discours à la nation déclaration la mujj nekk et ça a été une déclaration politicienne de très bas étage et dans sa déclaration c'était juste pour nous dire que am na benn décret bu ma le 29 novembre muy le décret 22 83 du 29 décembre euh, novembre qui était un décret boo xam ne la constitution moo ko prévoir donc dañoo tënkoon Macky Sall mu def ko mu def ko lépp jaar ci yoon. ñëpp commencé fagaru commencé préparé wu takk seen bagage xool seen ay yóbbal pour dem fi ñu jëm ñëpp nekkoon ci nag sans exception. Mm-hmm. et c' est vrai ciy nekk aussi dina am ay rëq-rëq kenn mënul fexe bu am ay rëq parce que l' œuvre yooyu nag amul benn élection boo xam ne dund nañ ko te amul rëq-rëq. Mm-hmm. élection yëpp est ce que c' est au moment où le match est en train de se dérouler qu' on dit non la fin du match on arrête le match et on change d' et on change de règle du jeu. c'est pas élégant loolu moo tax Macky Sall n'est pas du tout légitime fu mu toll nii et je pense que wax na ko en en en en en la la l'anecdote et l'allégorie l'allégorie il a pris le cas d'une entreprise il dit que dans le cas d'une entreprise il y a ceux qui ceux qui sont les propriétaires de l'entreprise ñu moom entreprise bi ñoom les grandes décisions les orientations ñoom ñoo koy jël on les appelle les actionnaires parce que ñoom ñoo ci dugal seen xaalis Sénégal ñi ñooy actionnaire yi il l'a aussi rappelé c'est tous les citoyens tous ceux qui sont détenteurs de la carte nationale de la carte d'identité nationale du Sénégal mhm. sont des actionnaires du Sénégal ils sont détenteurs de la souveraineté nationale tey bu ñu ne woon na fi yem daf fi yem parce que ñoo ko war a décider et je pense que waruñu woon nangu toujours benn nit di ñu fowee di ñu këll-këlee di ñu yóbbu foo xam ne ni toujours xam nañ ne du loolu un président boo xam ne lépp lu muy wax par jour lay nekk un président boo xam ne lépp lu mu digganteeg peuple du ko respecté avant muy dugg si lan la njëkk a diggan man gor laa man borom kàddu laa man maa leen wax ne sept ans ëpp na pour un président président bu bëgg liggéey cinq ans doy na sëkk nga liggéey li ngay liggéey soo amaatee mandat nga def li ngay def jox keneen mu def ndax l'être humain n'est pas éternel nous sommes des êtres yoo xam ne nii dañoo fu ñu yem lu ñuy dénk suñu paree ñu jox keer mu àggali donc bëbët yi bari na lool mais du ñu ñëw war a àggali dem et tout le monde l'avait compris far nag mu nekk président ñëpp jàppale ko ci bien que j'ai rappelé que en 2012 bu ñuy dem élection c'était tellement imparfait que les gens ne sont pas allés en campagne c'était telement imparfait que que ay euh, Cheikh Abdoulaye Dièye ay Ibrahima Fall ay Idrissa Seck beaucoup de leaders ont pris la place de l'indépendance demuñu fa lañ nekkoon et derrière ça aussi les leaders se sont réunis pour dire que ñun ce qu'on mooy processus bi nga xam ne c'est mal entamé ñu déggoo ci bañ a dem moom mu bokk ci ñëw signé ko mais ba mu ko signé dafa leen a wor dafa dem def leneen mu nekk sansam mu jikko dafa mel ni moom war moo ko jik mais bii yoon war du ko jik nag on va vers l'impasse et lui il n'a pas la possibilité il n'a aucune possibilité de prolonger son mandat c'est la constitution à travers des principes d'éternité qui dit que la forme de l'état état bi ñu am nii mënuñu koo changer durée mandat bi mënuñu koo wàññi mënuñu koo yokk nag moom ci boppam tey jii bu jàppee ne assemblée nationale mën na koo yokkal mandat pourquoi bu mu waxee ñëpp wër à travers le monde ni ñëpp man sama mandat cinq ans la dama koy wàññi ñëpp tàccu na lii kenn mësu koo dégg kenn mësu koo gis adduna bi yëpp on n'a jamais vu un président proposer de diminuer son mandat mm-hmm. mais est-ce que c'était réel est-ce que c'était sincère c'est vrai que moom il aime les effets d'annonce mais la réalité est toujours différente de ce qu'il dit.